Sofigemi. Sofigemi. Nana Koromulo. Nana Koromulo. Borambe. Borambe. Yep ben de mamaya. Yep ben de mamaya yani Koromulo. Sigara kimse yapmıyor. Nana Kumulol. Nana Kumulol. Harbaga gel. Harbaga gel. Ci xam dara. Da nga ci xam dara. Bal ba tak. La ilaha illa. Bal ba dal dal mu tudal ko ngi. yow yaay suñ buntu ci président Macky Sall yow lañ tànn ngir ànd ak yow ci buntu président Macky Sall yaay suñ candidat doy nga ñu yaay suñ mbër ngemm nañ la te billaahi wallahi tallaahi yow yaay daan ñun nag duñ waxantu gis nga bu gàmmu jotee danañ gàmm coupe d'Afrique bi du dem sax quart de finale du dem carré final. biñ la tey denc tey la tey bu soobee yàlla ci barke maa laa jot lay gis biñ lay sallallahu aleyhi wa sallam barke maa laa jot lay gis barke Baye Niass Pape Demba bu tey jox bu dañee rek ne leen man Cheikh Al Hadj Mouhamed Seye tur la man maa wax li keneen